ke nekkon xarit ci Baba mal, mo dal di rek ñàkk bakkanam nak niki démb rek ci àllarba ji ginnaw bo ñak niki démb ci àllarba ji yamako ñaar fukki fan ak juroom ñent ci ci atum 2024 jamono ji nak ñi nga xamantene rek ñom ñoy communauté culturelle dañu nek rek en deux ci célèbre guitariste bi nga xamantene rek ma nga fekk bax ci diwan bu Podor ci dekk bañ nan gédé mu nekkon ko xamantene rek mu ngi gëna ci aduna nak ci atom 1955 nek ko xamantene rek ko jégué Baba Maal la doon àndal nag artiste bi mom nak nekkon na gewel eh, ci tukuleur nekkon na gewel bo xamantene rek ab tukuleur la jamono ci am mo dal di rek ñak bakanam équipe bu Buzz MTV senegal yépp ña ngay masto bu baax ci le tis di jali njabotam di ko ñaanal yalla yeeram ko té xalal ko aljana bu ñu joggé ko fofu nak eh, dañuy addu rek wax nak ci dossier bi nga xamantene rek mom mo concerné ki di Cheikh Bara ndjay ak 13 fay yef ya nak dañ ko koy yóbbu fi nga xamante rek moom mooy ca kanamu division d'investigation criminelle moom nag kii di Cheikh Bara Ndiaye nekk ab chroniqueur rek jagleel ko Dakar Thérèse Faye Diouf mi nga xamante ne rek na fi ministre ci nguuru ko Macky Sall ne la nag koppar yi nga xamante ne daal mi ngi koy doxee ak jamono ji nag milliardaire bi nga xamante ne doon na ko rek ci diiru fukki at ak ñaari daal dinay louche lool ndax kii di Thérèse Faye Diouf nag moom ak jëkkëram yàggul dara rek ñoo bokkoon benn néeg ba ñuy fanaan foofa ca diwaan bu yoof mu nekk nag mbir moo xamante xamante ne rek jamono ji milliards yi nga xamante ne rek moom lay doxantoo wala chroniqueur gi eh, na nag kii di Thérèse ne eh, ba ñu ko defee nag ci xayma toll na ci benn milliard de francs CFA bu waral rek nag kii di Thérèse Faye daal di yóbbu yëfi nag ci division d'investigation criminelle ngir mu indi ci nag ay eh, leeral ba tey bu ñu jógee foofu nag dañuy àddu rek wax nag ci li nga xamante ne rek moom moo ñeel général bi di woy ci Souleymane Touré Souleymane Kandé daal di nañ koy gis nag mu fës lool nag ci xëtu njëkk journal yi waral rek colonel Abdou Aziz Ndaw daal di yëkkati kàddoom nee na bi nga xamante ne rek général Kandé daal dina koy def bu ñu sukkandikoo ci colonel Abdou Aziz Ndaw na erreur bu mag rek la daal di def nag moom général Kandé ndax kii di général Souleymane Kandé jamono ji nag gis nañ ko rek mu fës lool nag ci journaux yi ginnaaw affectation bi nga xamante ne rek son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal dina koy def yóbbu ko ca diwaan bu néew dil foofa ca diwaan bu Inde waaye nag bu ñu sukkandikoo rek ci yéenekaay bi di lëkk quotidien ma ngay daal di xam ne que ne chef d'état major bu armée de terre nag gis nañ rek boobu le nomination ab humiliation waral rek mu koy attaqué jaarale ko ci décret chef d'état ci kanamu cour suprême bu ñu sukkandikoo nag ci colonel Abdou Aziz Ndaw mi nga xamante rek nekkoon na ancien haut commandant bu seconde gendarmerie ginnaaw laaj bi nga xamante ne rek suñu nattangoo yi RFM daal dinañ ko koy laaj ne ne problème bi dafa njëkk maanaam daal problème bi du problème ba Bassirou Diomaye Faye ndax yëf yi nag moom moo jiitu sax kii di Bassirou nguur gi bu ñu sukkandikoo ci colonel Ndaw nag nee na nag moom du ci addu ginnaaw nag kat yi nga xamante ne rek ñu ngi koy yëkkati moom daal du ci commentaire waaye du leer ba leer daal mooy général kande moom ci jëmmi boppam rek dañ ko joxoon fonction yoo xamante ne mu daal di koy jël lekk dékku ko te warul woon ko dékku nee na erreur bi njëkk moom moo nekk lool te autorité yi ci seen jëmmi bopp rek ñoom ñoo ko daal di def nee na eh, lii di ab officier général mu nekk ab commandement organique moom ci jëmmi boppam rek commandement national la bu fekkee ne rek mbir mu nu mel dañ ko daal di doxale boole ak général Kandé ba tey moom nee na commandement organique euh, moom moo nekk armée de terre te warul commander armée de terre mu ne moom ci jëmmi boppam rek euh, nekk na chef d'état major bu armée de terre kon nag dafa war a waajal rek armée bi ci lépp loo xamante ne rek mission la nee na problème bi njëkk bi foofu la démarré nee lii di force spéciale yi nga xamante ne rek teg nañ ko jox nañ ko kii di général Kandé euh, nee na nag mbir munu mel waruñ ko ko woon jox ndax président de la république di kàddu yi nga xamante ne rek colonel Ndal daal dina koy yëkkati bu ñu jógee ko foofu nag dañuy addu rek wax nag ci wàllum tàggatu yaram ginnaaw prime yi nga xamante rek moom la match yi dox dox ci diggante suñu gaynde yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy république démocratique du Congo yëfi nag dinañu ko amal niki alxames yem ak juróom-benn fan ci weeru juin ci stade Abdoulaye wadd ba nekk ca jëm ñaajo laata rek ñuy dem ca diwaan bu tani mu nekk nag ñaari rencontre yoo xamante ne rek fas nañ ko amal ci quatrième aka ci troisième ak quatrième journée bu qualification mondiale 2026 bu groupe B ne nañ nag bu fekkee ne rek am nañ résultat yu positif nampaay joueurs yi ak seen staff yëpp rek dinañ leen ko jox waaye nag mu nekk mbir moo xamante ne rek lii di tutelle bi si jëmee boppam moom moo ko daal di sàkku ginnaaw rek biñ ne xibaar bi nga xamante ne rek daal dinañ koy fësal kii di Khady Diène Gaye moom nag dafa daal di def a proposition ñi nga xamante ne ñoom ñooy fédération sénégalaise football nee na nag mbir mi nag dana nekk mbir moo xamante ne dinañu ko nangu waaye nag bu ñu sukkandiku rek ci quotidien yenn kaay la mu daal xam xamle moo di accord yi nga xamante ne rek fédéraux yi ak ministère yi ñoom ñoo ko daal di def lii di prime yi nga xamante ne rek fas yéene nañ ko jox gaynde yi état ci jëmmi moom mooy nekk en charge ba tey bu ñu jógee foofu nag dañuy àddu rek wax ci njuubal luubal njuuj njaaj gi nga xamante ne rek ñi fi nekkoon nag ci bopp nguur gi ñu ngi koy amal mu nekk mbir mu doy waar boo xamante ne rek daal dinay xew foofu ca diwaan bu Sonacos ab géwélu ki nga xamante ne moom mooy Kibili Touré rek lañ wax ne moom moom dañ ko doon fay weer bu dee 1,5 million jamono ji nag kii di Ndane Diagne moom moo ko daal di wutu rek ca boobule bopp moomal ñu dippee ko Sonacos moom mi nga xamante ne rek xam-xamam dafa màcc ci wàllu audi ak contrôle moom moo daal di rek nekk ca boobulee bopp entreprise waaye nag mu mel ni rek Sonacos jamono ji daal dinay feebar lool li ko feebar du lenn rek muy mag ñàkk koppar ak manqué koppar gi nga xamante ne rek daal dinay am délégué personnel ci seen jëmmi bopp rek doon nañ def nag ab jàkkaarloo ni ki démb ci àllarba ji yemoo ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai ci atum 2024 ñoom nag lañ daal di xam ne rek moo di seen DG bi daal nu ko neex rek la doon fayee ci coono yi nga xamante ne rek naam ña nga ca dëkk mu nekk difficulté boo xamante ne rek kii di Kibili Touré nag moo leen ko daal di yóbbee ginnaaw bu mu ne dafa embauché juróom-ñett nit di leen fay 300 jàpp 900 mille nag ñëpp ci seen cabinet la nekkoon mu nekk nag ay nit yoo xamante ne rek ay jege ñaaleem lañ ba ci koo xamante ne sax nee nañ ab géwélam la bu ñu sukkandikoo ci kat yi nga xamante ne secrétaire général bu section association Louga collectif euh, daal dinañu koy yëkkati moo di ne nag géwél ba jëmmi boppam rek dañ ko doon fay per lu toll ci 1,5 million weer bu dee yeneen éléments yi sax ci seen jëmmi bopp nee nañ nag seen salaire dañ ko doon jël di yokk mbir mu nu mel nag ña ngi cay àdd bu baax directeur bu yees bi mu daal di rek xoolaat anam bi nga xamante ne rek moom lay bërëb boobu di doxee bu ko defee rek ña ngay sàkku nak ci patron bu yees bi mu daal di topp programme bi nga xamante ne daal dinañu koy teg eh, Sonacos yi nekk ci biir réew mi yëpp mën cee gis seen bopp mën a wéyal seen i activité ba tey bu ñu jógee foofu dañ koy jeexalee ki nga xamante ne moo ko ni ki tey ci alxames di ca diwaan bu Ndakaaru wutali fi ne moom mooy ca diwaan bu Bamako mu nekk tukkib nemmeeku boo bu baax diggante ñaari réew yi rawatina nag si wàllum solidarité ak fraternel bi nga xamante ne rek moo leen daal di boole jërë ngeen jëf ci addu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir dara bañ leen raw